ma ko woon sax ma ko waaj tali bi yow mooy eh, dox doo xool fi ngay dox ni ngay def ni waay waaye amul maa jéegul amul dara ni ngeen def rek loolu sama jaka daal bëgg gannaaw te fekk yéen a teewul xool fi ngeen dawal doo xool fi ngay dox booy dox waaye amul maa jéegul amul sa gerfaas gu bon gi su ma la mbëggoon fii yaa bees rek booy jéegi tali bi doo xool ni da ngeen def bu leen sama jaka daal nga naan mu daw dafa fekk mën na daw yéen a xool fi ngeen jéeg waaye dugal fii waaye sa gerfaas gu bon gi nga jéegi tali bi doon noo xool fi ngay jéeg waay kii da nga amul maa ngi jéegul amul dara noppi laa wax ma jéegi doo xool. eh mais lan la yow doo. nu mu demee nii gars waaw rus sa yoon yow. waaye ma yow yaa lan moo. yow yow yoon bu wàccee sa oto gis. mais mais mais ferme la. mère de boo gisee ngay wax ak jigéen du ma wax ak. mais da ngay laajte la yow mais. xanaa jantal man yow. ma yow da nga dof xanaa yow. sa loxo na ko laal. ni ngeen def bëgg jigéen booy bëgg dee boo leen gisee. waaw jigéen da ngeen gaz seen borom. waaw da ngeen bëgg jigéen waaye. kon góor def li waaye yow. yow xam nga ne boo. yow la taxawoon xam nga def la. waaw ba yow lan ngay wax ak ñii nii fan nga jëm nii ville laa jëm daa ko déposé waat

mais sama ngor mayuma à pareille heure une dame ñëw toog fii ci buntu kër gi ak melokaan boo xamante ni kenn xamul nu mu mel. frère dëkk bi kenn defatul lu baax boo defee lu baax xeloo ci am du la neex te dëkk bi ñu toll nii ah doy na waar de. Ah, mais doy na waar garaawul cest à euh, nañ jiital yàlla rek ba pare xam nga. te ba pare waxna ba sonn mais mom du wax demb nelawuma xol sam bët yi dama don jabanté sama neegu yaay di la xol di jabanté neegam di ko xool parce que xamuma mën tepp ñew ñëw dugg ci neeg bi xoj la motax sax ma bañon ye ñaar ngeen fanaan. ci man de dama don jéggi toujours xalé bu goor bu bëgg ma fer. mais aussi tamit da ngeen di éviter yoon yi di di dox yi nekk ci seen téléphone ak yooyu noonu da ngeen ci bàyyi xel loolu kenn ko def mais te bu ko répété jamais de la vie te booy yaruñu amuñu yar amuñu benn yar. loolu tamit merci dégg nga. loolu loolu dara looloo ma war. bu nekkutoon yow ki dina ma dóor dóor yu métti. dóor bu la dóor yi dóoraale ma. Eh, fan ci biir nga def. <laughs> mais moom anam. maa ko bàyyi woon si biir mu toog. est na damaa ko wóor. problème yi day bari nit ñi boo moytuwul sax da doon wujje ah wala boo moytu doon koo may ko bëggul wala non doo comprendre ñaari tamit danoo war a bàyyi kun gis maye la xamoo hm. xamoo ay mbokkam nga jël ko fekk ko fii si biti guddi ah, nga yàq ko sa biir kër hmm? léegi imagine trois waaw sama remarque bee léegi ndaw si moom bu bu bu yuuxu woon waaw ni viol waaw wala moom ba mu koy yóbbu këram mu yóbbu ko kër yaayam wax ni ko kii daf ma doon viol wala moog yaayam ñu komplo ko mënuñu see lekk xaalis bu bëri fii te bu ko rek rek da nga koy condamné à mort ba pare euh, euh, demander de permission contre x viol. du million double x. double x million. ay million. imagine toi ndax léegi ñiy def loolu ci dëkk bi dañoo bëri nii. ah moom man damaa yaakaar ni moom njàngam. fan la ko jaar moom a jaaxal. dinaa ko wax. waaw ko jaraaf. Mm-hmm. mu waaw man ko xale bi boo seetee ba si biir doful. man sa yoon. sama yoon nag si. te na si maamu ci. na ko bàyyi. ñu ba ko mu ko ku

waaye tamit doo ñu faale noo tudd. eh fan nga dëkk. foo dëkk. foo dëkk. doo ma foo dëkk. moom dafa vague léegi on va ñu profité ci joxoñam bi jéem a xam fu mu dëkk. ko man jigéen laa moom jigéen laa. léegi da ngay man ma ànd ak moom léegi joxañam bii muy joxañ ah. jamais topp ko ci rek. jamais jamais du ma ko def. ansonuna ay ko may walo amadan daan liggéey dañu ma fonko waaw liggéetu ma lu fire rek ñu jiñ ma sama xarit bi jël na baat bu neex bi di kula wax rek nga awuma la ak yalla je t'aime waa foo ni wayo li nga way lan la nga gis nga rek bëgg papa ko lima dugg see lum la wan xol bu sedd oui ma may lañ doon jébalé ay xarit chat ay way la bari ci rew mi li da jar té sa bop sama xol baa ngi sedd yaayu ma nga ba bàjjen ba contane ay yow xalé yi nan seen bop ndax bés bi waaw xuma loolu ah ya seetaane woon laa anu nga def xarit wala ta sa togaay mën nga lu xew ci tundu wi rek ya koy wal ya koy fekkee ba man kay léegi yàq naa ci dem mais nag réew taxama yàq de nii la nu mel duñ toog. <laughs> moo taxit. oh law la cet. Hmm. waaye nag nanu fexe ñun ñi ñu fexe ba jaar fii bëgguma jaar de. waaw xam nga ne suñu bis ci tund wi day ah, ndax benn yoon lay doon. billahi benn yoon lay kenn du ko fi dagg-dagg di ko fi def ñaar maa ngi yow mariage. ah loolu mënta ñàkk maa ngi yow tamit faw ñu jëlandoonu benn bes même jour lay doon même mariage. mais nag man j'adore man dama bëgg ndaw lu respecté boppam. Mhm, te lii ci dignité la bokk est-ce que xam nga lii. Mhm. bu ñu ko arrêté wul ndaw yëpp te seen bopp. c'est parce que euh, du du du diine maanaam du diine du l'islam mais dafa fekk dafa nekk loo xamante ni suñuy maama ko fi bàyyi. ñu di ko def ndax ay laabaan ku nekk xam nañ ni kenn bindu ko ci diine. mais dafa nekk ay valeurs yoo nga xamante ni waruñu ko perte. te ndaw léegi ñu ngi perte seeni valeur léegi très rarement ngay dégg ay laabaan. te lan moo ko waral mooy xale yi léegi wow nañu bët. topp ay xale yu góor yoo nga xamante ni tekkiwunu dara ci réew mi bazar de seen bopp man daal li ma gis ci réew mi xamatuma ko daal mais ñun yàlla nu ci yàlla musal daal ay bis buñ lay laabaan ci réew mi ah bis buñ ñuy laabaan non bu boobu moom duñ bokk bis ndax faaw ma seetaan si déedéet bis buñ ñuy laabaan àndandoo sëy wan dëkk bi ginnaaw je marche dëkk bi xam nga lan la ah. kaa bi xaju fii sama liggéey bàyyi ni maa ngi ñëw baa ma lenkalil la rek déedéet xarit dama lekk maa ngi ñëw xam nga dama lay dóor yaa gën a yaa gën a xam ne lenkalil ma loolu yow maaleykum salaam. ñoo fi rek. eh Fatima yow Fatima foo nekkoon Fatima wuyu ma yow fan nga nekkoon. asalaamaaleykum. Euh, ni ñu ko daan defee xam chaque euh, tous les 15 jours nous def réunion d'évaluation. C'est important pour une entreprise. parce que bu ngeen évaluer.

mag ñoo fa nekk bu ñu jógee nag ca Kajoor ñu dem Ndar am fa beneen décor yaay dama lay njëkk a wax nga dalal sa xel ba pare nga ne alhamdulilahi rabil alamin ndax kii dama guddee wàcc ñëw di gaari sama buntu kër mu guddi lool ci jigéen ma fekk ko mu toog man tiitoon naa sax parce que dama yaakaaroon ni jinne laay gis nga baal ma ci terme bi ma dugg ci biir sama xel dalul ma génnaat ñëwaat fekkaat ko mu toog ma laaj ko waxul te ko mënul wax nag wax dëgg yàlla ak ni mu mel ni bàyyi ko ci biti du wóor te ñun sunu yaay nekk fi dafa dem voyage man jël ko boole ko sama rakk bu jigéen bi ma nekkal mu fanaan xëy ma koy laaj fu mu dëkk mu may joxoñ ci 7 heures ba léegi yaay maa ngi wër ba gis nga 11 heures moo jot alhamdulilah rabil alamin ma tafet fii ndaw su baax moo ma xamal ni kii fii la dëkk moo tax ma indi la ko. alhamdulilah boo dellu si waat sama ne ko dama ko war a sonn. parce que bari na fii aujourd'hui ay télévision yoo xam ne ñu ngi fi ñoom ñoo waroon ni sax jëkk ci loolu waaye bu ñu ko deful it kii man def ko rek dama ko daan defee démb ba ki démb waaw waaw loolu naan la amoon ci. ay information yu mboon a partager ak yéen te xam ne fi mu nekk toog amatul. waaw liggéey rek wala madame la directrice. so ah, daanaka na fekkente am bolo ci sanni rek nga sànni ko ci ñu jàll ci la. Euh, monsieur Mbaye wax na lépp. Hmm. kon liggéey bi def na na kon ci yéen ñii la dess yéen ñi nga xam ne yéenay dugg ci bi terrain bi di xol kon liggéey bay bàyyi nañ ko seen loxo. fépp fu ngeen gis décor bu rafet wala décor bo xam buñ ko indee teg ko ci Kéemaan Vision dina jëmale télé bi kanam ngeen indi ko.

jërë ngeen jëf ci teewaay bi. maa ngi lay gërëm di la remercier bu baax a baax a baax a baax. Mm-hmm. jërëjëf. jërëjëf. kon maa ngi dem. waaw doo toog. déet damaa yor liggéeyu jàmbur mais xam naa comme que xam naa kër incha allah dinaa fi jaar. jërëjëf euh, maa ngi lay yàlla la yàlla may taal. jërëjëf yaa koy maa ngi dem. waaw kay. waaw kay. sama doom. maa ngi la topp rëy na waaye ah. maa ngi ñaan ci yàlla yàlla na ko yàlla teggi waaw dama woo sa papa allo Damel Fatima ñibbisi na ci kër gi ñëw na waaw ñëw na yaa ngi ñëw na sama doom Malah lo naa li na allo. allo boss. oui. naka taw feexe yi. lépp mais affaire bi kulul de. lan moo kulul foofu. dafa am problème bu fi jot a xew de sama digganteeg faa fing na de. eh expliqué ma lu leer lan mooy sama digganteeg faa ma fing luy lool. sama digganteeg moom fing na mais mujjee naa tey. waaye yow dool yow yow dama lay laaj yow est-ce yow menacer ma nga nan da ngay man bul ma amer de dama ni la nga menacer mako mais santuma la ay ray kan mola la lo mais tolol bul jaxlé do am ben trace xam nga ray nga ko na nga fexé ba ñooñu nga nekkal bu mu tok sen nop xoolal nu koy lijjantee ba lepp cool sama liggey ray bokku ci may énervé yow vrai imbécile nga mais kii dafa ma bëgg a indil problème yow menacé ma nit ki ngay rey